Tiens. Mesdames la presse, merci de votre présence. Et nous voudrions vous faire un peu le film de qui passé, ce qui s'est passé cet après-midi ici, à la mairie de Guédiawaï, à l'occasion de l'installation du maire, mais aussi au vote pour le nouveau bureau municipal. Il y a un constat qui a été fait. Un délit. On peut même le considérer ainsi. Parce que il une dame du nom de Madame Aminata et sa fille, Fatmata qui ont voté lors du vote du bureau. Elle partage un conseil municipal, ce qui est anormal, de parenté de premier degré, ce qui est quand même qu'on peut considérer comme une forfaiture. Quand la remarque a été faite auprès de l'autorité publique. Il a fait fi et il a laissé le vote continue Donc ce vote-là peut être considéré comme nul et non avenu. Heureusement qu'on était au premier adjoint. Ce qui s'est ce qui a provoqué quand même un tollé, une situation que vous étiez là, vous la presse, on était dans des conditions où on ne pouvait plus continuer, un, à procéder au vote. Le deuxième fait, sur une procuration, le nom de Hafiz Satou, le nom inscrit sur les listes et celui qui est mentionné sur sa pièce d'identité, sur la procuration, était différente. Puisque c'est le maire qui présidait la séance, le préfet était là comme superviseur, ce qui fait un deuxième constat. Et ils ont voulu quand même faire un hold-up. C'est un coup d'État. Et notre coalition a dit non. le préfet du département, malheureusement, nous a dit seul le conseil municipal est souverain. Alors que c'est le maire qui présidait la rencontre. Et nous avons dit que le vote ne va pas quand même se dérouler dans cette salle. Et on voudrait aussi dire à M. Alun Sall, le maire sortant, et à sa coalition, et au président de la République, monsieur Macky Sall, d'accepter la volonté populaire. Il y a 6500 voix qui nous séparent de l'équipe sortante, entre les Yewi et la coalition Benno Bokoyaka. Non seulement ils doivent quand même accepter la volonté populaire, mais aussi accepter la volonté divine. Quand ils débarquaient ici chez nous en 2014, Beaucoup de gens disaient que mënul ne ça c'est impossible et pourtant il a été élu maire et nous l'avons accepté avec un bonus de deux années supplémentaires il devait quitter en 2019 jusqu'en 2022 et aujourd'hui en 2022 au soir du 23 janvier par la grâce de Dieu le Tout-Puissant il a mis fin à son mandat et à ses fonctions de maire nous lui demandons d'essayer de passer par la grande porte d'être un grand et avoir de la grandeur nous ne voulons vraiment et on doit éviter que l'irréparable ce produit. Nous avons dit ça au préfet. Il est là, il nous dit non, le premier adjoint, patiti, patata, le premier. Nous avons bloqué le travail. C'est ça, le film des faits. Nous remercions encore une fois toute l'opposition sénégalaise qui est là. À sa tête, notre doyen, notre grand frère notre mentor le président du grand parti Aladji Malick Gakou nous nous lui disons merci et il a été déclaré ici devant le préfet et devant le maire sortant qu'il est élu maire honoraire de cette ville nous sommes majoritaires et nous allons le voter incha allah rabbi nous remercions aussi nos amis de la coalition Wallu à sa tête le président Abdoulaye Wade le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais qui a prié depuis 2019 devant le président Aladji Malick Gakou c'était à Paris il m'avait promis ça qui va être le prochain maire. Alhamdulillah. Il est représenté ici par le chargé de mission du président du ministre d'État Karim Wade, Salou Dieng, il est là. Elle est responsable du Parti démocratique sénégalais. Le parti du président Pape Diop, Bokk Gis Gis, est bien représenté par le député du peuple, Cheikh Abdou. Bara Dolly spéciale à toute la coalition Yewwi Askan Wi mention spéciale à mon boss mon président directeur général est là le président de la grande coalition Gëm Sa Bopp Bougane Gueye Dany qui m'a soutenu qui a fait ce déplacement si cher nous vous disons merci. Et nous disons merci à toute la presse, à toute la population guédiawayoise, aux femmes, jeunes délégués de quartier, Badianou Gor, imam, toutes les couches. Nous disons merci et nous disons Alhamdulillah. oui, oui. Voilà. Merci, Président. Et la passation de service est prévue pour demain vendredi à 16 la presse est invitée ici. au secrétaire général de cette institution de faire son maximum, de les dispositions que le maire sortant soit là ou non, nous allons la procéder. Nous allons commencer à travailler à partir de lundi prochain. Incha allahu rabbi dès lundi. merci beaucoup ñu sant yàlla gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog yëpp sant tamit coalition Yewwi Askan Wi sant suñuy waajur du ma ni samay waajur suñuy waajur. ñun waa coalition bi ñëpp a sonn depuis ba ñu téyee suñu liste golf ak saam ba tey nelawu leen forfaiture yi dafa bëri ba pare gudd ngeen xeex ba yegg si fii ñu ne mënul ne ñu nekk ci ba lii ñëw tey li xew fii tey nag ma defal leen tuuti résumé dañ fi gis yu defuwul préfet nee na ma personne n'est au-dessus de la loi ma ko dëgg donc la loi doit s'appliquer ci kaw ñëpp soxna si ñu naan Aminata si di yaayu Fatmata si ñoom ñaar dañoo voté tey te bokk ndey baay wala doom ak yaay mënuñoo bokk benn conseil municipal ñu def forcing ñëw toog la loi l'interdit ñu vote ci premier adjoint ba on l'a signalé ñu wax ko préfet préfet tànqamlu ñu voté mu ne nañ compté ma ne ko vote bi baaxul parce que loi day tere lii kenn cay démissionné keneen remplacé ko mu bàyyi mu jàll ñu ñëwaat li tubaab di wooyee procuration boo feebaree wala nga am ngànt da nga dem wutim këyit dem police ñu légaliser la ko nga ne man kat Mbacke Gueye mii laa bëgg man mu woteel ma bu bis ba jotee ñu am genn soxna bu bokkaat ca ñoom lañ bind ca list ba ak turam bokkul ñu signaleeti ko préfet moom sax amu fi woon benn doole maire présidé waaye bëgg a jekkal rek ak jox ko tam cëram en tant que autorité publique ma signalé ko ko te su ma neexoon dama naan doo voté mu tànqam looti waaja votel ndaw sax mu dul yoonati ñu ñëw di compter ñu ne leen compte bii du fi am ndax vote bi baaxul looloo indi coow li nous avons demandé à police mu génnee ñëpp muy ñiin comme muy ñoom balaa musiba di fi am ndax coow li commencé woon am sàndante gurtu ndox yeeg lu ne ñu taxaw tànkam lu rakko Macky Sall bi Aliou Sall toog fee liee indi coow li ma xamal ko nag moom Aliou ne ko nit da ngay nangu ndogal ñaari ndogal a wàcc seen kaw wàccoon na ci kaw waa Géejawaay 2014 te dañ koo nangu wàcc na bi yoon seen kaw di ngeen ko nangu te dinañ ko nangu nag parce que waa Géejawaay dañ leen wax ne leen yéen a fi ne itam dañoo bëgg ñin bëgguñ leen waaye yeewee askan wi lañ bëgg lii am. ñaareel ba mooy yàlla mooy dogal fii lañ daje cité Aliou Sow man ak moom nuyoo woon te defante ay salaamaaleykum moom ca kàddoo mu ne 2014 bi ma fii ñëw ñëpp dañ ne woon lii mënta ne waaye yàlla dogal ko moom mooy wax de 2022 ñëpp dañ ne woon gone gii duma ma gañe yàlla dogal ko kon yéen ñi ma àndal jàpp leen ne kon yàllaa ko dogal kon moom waxum mbedd la doon wax setum ginaar mu ñëw fii tey bëgg a def safaan wa ñu koy wax ne ko bu bëggee mbir yi nag yomb metti na nag metti na moom waaye pour ñu gën ko koo oyofal na dem rek jaar par la grande porte daal di dem dem gu rafet am grandeur comme ni mu ko defee waaye bu mu ñàkk ba pare bëgg a ndax mairie bii nag doomu géejawaay nangu nañ ko loolu lañ ko doon wax bëgguñ ci nag benn coow ndax li fi xew tey moom gënalul kenn du presse bi du ñu fi nekkoon ñu koy wax nag mook ay nitam salle bii ñoo fi daan toog tey ba ñu woowee journaliste yi ñu ngi wut ay ruq-ruqaan yu ñu dugg loolu rek wane na ni kon ñoom yàlla yemale na ko fa te ñu nit duñ fi toog ba ilaa yow mi diin bisa ngee ñëw yàlla dina wut fu ko yemale ndax ay dix ak quinze mandat moom ñun ñaanuñu ko yàlla loolu moo xew tey fii du ñu bàyyi doom ak yaay nekk ci ab liste électorale te loolu loi bi tere ko ñenn dinañ fi voter par force te ñu jëm ba quatorzième adjoint ñu ne duñu ko nangu vote bu njëkk bee bon fa lay yem duñ bàyyi muy dem ñaar di bon ñett di bon ba suba nag incha allahu rabbi ci àjuma ji la ñu secrétaire général bi jox convocation nañu ca la ñu war a joxante lengay man ak Aliou Sall fii ci digg maire bi ñun nag incha allahu rabbi ñu ñëw buñ jullee jumaa ba pare 16h incha allahu rabbi fii su ñëwee danañu ñëw bu ñëwul dinañu ñëw te secretaire général mi ngi may dégg convoqué naa ko léegi ci benn bureau ne na jël disposition yëpp pour cérémonie bi nekk lu jekk moom nag forcé wuñ ko gis nañ fi ay passation de service yoo xam ne ñañ daan daan bi da leen mitis day mitti seen yaram ba duñ mën a ñëw bu ñëwee nice bu ñëwul tamit na ko secrétaire général organisé suba ci àjjuma ci may wax nag mbooloo mi ñu àndal nañu bokk nañ ci maire yi ñu gën a teg bët rakkam dee lañ wutu mbaala rakk ja mën ni dinañ ko mën mën nañ lu ko raw li koy mayee nag mooy liggéey ba tax na àjjuma boo leen jëlee lenge altine huit heures au bureau ñu liggéey ñu ñëw nag ci cant yi parce que lii ngeen gis nii ay nit a ci jàpp tàmbale ko ci ñetti parti ay initiateur ba ci PDS sax yàlla moo am nu mu dogale muy taxaw Pastef ak PUR ñëpp ñëw fa koy dooree sant nag suñu kilifa suñu mag di suñu mentor di El Hadj jàpp ci biir coalition bi financièrement côté logistique ci saayir ak ci baatin gungee ñu ba bisu tey bi tey waroon na tukki ba léegi mi ngi fi toog ne danoo installé passation de service mu doog a tukki di président El Hadj Malick ca loola nag ginnaaw ba ñu toogee démb ñun waa yeewi di réunion barki démb ca lañ ko fa wax mënoon nañoo tëb rek sax def ko te kenn ñu mere ñu laaj conseil ne leen dañ ko bëgg a def maire honoraire bañ ko waxee tey kanamu préfet mag ñuy jéem a gàggante naan conseil bi nag mooy dogal ñoo fi majoritaire toogal rek jël sa temps danañ ko voté takkal la bande bi nga doon le maire honoraire le maire des maire ñu sant nag coalition opposition bi ndaxte tey ñëpp a fi daje Ablaye wàdd France la wootee Karim wàdd Qatar la wootee ñun ñëpp jot nañu jël délégation ma yoro nga ne taxaw Doudou wàdd waroon na ñëw am empêchement chargé de mission Saliou Dieng merci. Saliou Saliou Dieng de mission Karim mi ngi nii toog yor structure parti bi moom lañu ñu ak ak yor Faye président Doudou Wade am ngànt ba tax ñëwul ñu koy sant di ko gërëm sant tamit nag honorable député député du peuple ngi nii Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ngi nii toog pour yéen ñi ko doon dégg chaque jour ci rajo bi mu nekk suñu xarit nag nekk itam suñu xaritu groupe de presse bëgguñu moom mii toog sant nag ki nga xam ne da di sama kilifa ñaari yoon jiite ma fi may liggéeye di président Bougane Gueye Dany jàppale ma ci lii mënoon a wax ne it waa ji bu ñëwee tey bu ñëw bu suba maa ngi koy tonkeroon naan ko moytu leen di ma dagg monsieur le président directeur général encore une fois merci maa ngi lay sant di la gërëm te lii bi nga déggee coow li ñu naan ay waa walloog ak waa gëm sa boppa ak da ngaa daw ne damay ñëw pour wane comme waa PDS li ñu wane ku fi def leneen ñin santuñ leen ko ñin seen i njiit ñin seen i njiit li ñu leen sant mooy voter l'opposition waaw dégg ngeen ko moo njaay nee na loolu moom moo koy dëggal ñu sant nag suñu maire yi doore koog suñu doyen yi nga xam ne moom mooy ajaratu njéeme baar madame la maire ñu ngi koy gërëm di ko sant jigéen ñi nag laay njëkkee xam naa góor itam ñu mere ma ak suñu maire Aminata Kanté ak suñu maire Khadija Maye Koor waaw Pastef ak suñu maire euh, Khalifa Ababacar Thiam bu PUR ak suñu maire Tahirou Konaté bu Grand Parti sant na coalition bi yëpp ñi ci bokkoon yëpp entité yëpp yëpp yëpp sant nañ leen en tout cas gërëm nañ leen presse bu toll nii nag bi ñu commencé ba léegi jàkkaarloo guñ ak ñoom ñu profité nag sant ci sumay directeur de campagne Mamadou Thiam ñu koy sant di ko gërëm bu wér ak Ramatoulaye Bodian mi ngi nii toog ak suñu porte parole suñu mandataire di Mor jaw entité bi nga xam ne tam man moo ma délégué man ñaari entité bi ñoo ma délégué waaw suñu plénipotentiaire euh, Mbacké ñu ngi koy sant di ko gërëm bu wér ak suñu euh, euh, président commission recensement des votes Ousmane Sow di gërëm tamit waa géej Guédiawaye la bokk waa GLB waaw gërëm tamit bu baax a baax a baax grand parti waaw suñu yaay ji nag ñu ngi koy sant bu wér suñu présidente des femmes en pleine campagne la fi borom këram jógee mooy ajaratu nen na mbaay sant ko gërëm ko waaw gërëm daal presse bi waaw tey li fi taxaw rek mooy wane ne suis le candidat de la presse quoi non xam moom moom moom non moom patron de presse la moom du candidat de la presse bokkul ci yéen de man maa bokk ci yéen waaw ma j'étais le candidat de la presse je suis devenu le maire de la presse waaw waaw tamit nag suma waajur yi nga xam ne ñoom Pape Bachir ak suñu xalif bi Cheikh Sadbou Aïdara ñoom ñëpp ñoo ngi fi ak suma mbokk yaay Mamadou Sarr ak Arouna Diop daaw da ñooñu ma ak ñoom ñoo bokk nday en tout gërëm nañ ñëpp daal sant ñëpp gërëm tamit nag suñu sëriñ bi nga xam ne bis bu ne moo ñuy ñaanal di allah wahidun mi toog waaw en tout cas daal gërëm nañ sécurité bi gërëm ñëpp gërëm tamit la lion Omar Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sant dégg nga waaw gërëm tamit waaw Daba mbay mi nga xam ne nag moom moo fi nekkal sama Aïda Mbodj Daba Mbaye merci Roqe